alhamdulilah liñ doon tàmm mbokk yi mooy talaata ñu def kitaabu tawxid mercredi ñu def qisasul anbiya wala ñu def bulughul maram yàlla dogal am mbokk boo xam ne mu ngi ni toog day def dars àllarba bi ci alfiqul waadix muy téere boobu muy jàngale fiq te mu am importance léegi ñu bàyyee ko àllarba bi gis ndax gis jàngale bu am solo bu muy def su ko defee léegi ñu alterner diggante talaata bi talaata bi bu ñu defee kitaabu tawxid bi beneen bi ñu def qisasu ambiya bi incha allah bismillah ñu jëm ko defee noonu tey ci kàttanu borom bi qisasul ambiya la ñuy def ñu jël qissa suleyman alayhi salaam suleyman li njëkk bala ñuy wax ci moom dara nettali ci dundam bu am barke ñu wax suleyman lenn ci askanam lan mooy cosaanam moom suleyman suleyman yonent bu tudd daawud moo ko jur daawuda boobu dafa bokk ci sëti yahuza ibnu yaqub daawuda dafa bokk ci sëti yaqub yaqub xam ngeen ne moom mooy baayu yusuf yaqub kan mooy papam ishaq isaaka kan mooy papaam ibrahim kon gis ngeen càll la suleymaan ay yonent rek ñoo ko jur ay yonent li yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon yuusuf ku baax doomu ku baax doomu ku baax doomu ku baax suleymaan alayhi salaatu wasalaam baayam bi nga xam ne moo ko jur muy yaqub muy daawud xam ngeen ne ab yonent la woon yàlla wax na ci alquran ne daawuda moomu wa aatayna daawuda zabura daawud yàlla ma jox na ko téere bu tudd zabur sunu borom booleel ko moom daawud diggante yonent ak nguur yàlla defal ko yiwu àdduna ak alaaxira moom daawuda mu boole ñaar boole nekk yonent waaye boole nekk buur loolu néew na lu ëpp ci yonent yàlla yi benn ndomba tànk dong la ñuy am mooy lan yonent lañ yàllaa leen yónni amma yonent buur bëriwul Suleymaan moom yàlla mayoon na ko mu am xikma mu xereñ torop looloo tax ahlul kitaab doon tuddee Suleymaan alxakim ñoom sax daawuñu ko woowee Suleymaan nabiyullah déedéet dañ doon wax Suleymaan moom ci borom xam-xam yi la bokk waa ahlul kitaab loolu lañ doon wax waaye xam ngeen ne Suleymaan kenn la ci yonent yàlla yi nga xam ne yàllaa leen tànn yónni leen kenn ci borom xam-xam yi ku ñuy wax mujaahid nee na ñeenti nit ñoo mus a gouverner àdduna àdduna bi ñeenti nit ñoo ko mus a moom loolu nag pour ñu dégg ko mooy tey booy xool dëkk yi di nga ne dëkk bu nekk dafa am ku ko moom suñ la nee Sénégal nga ne ku ko moom Macky Sall buñ la nee Gambie nga ne buñ la nee Mauritanie nga ne Abdul Aziz amma nag moom àdduna loolu ñeent nit la ko yàlla masa may ñaar ñi ay jullit lañ ñaar ñi ay yéeféer lañ mu ne fa amal muminaani fa suleymaan bun daawud wa zulqarnayni kooku ñu naan Alexandrie le Grand te ñu tuddee ko zulqarnayn mus na gouverner àdduna penku ba sow ndeyjoor ak càmmoñ ak Suleymaan mii bu fekkee yéeféer yi ñaar lañ ku ñuy wax Namrud ak Buxtu Nasar ñeent ñii ñoo mus a gouverner àdduna nga xam ne ñoom doon ñoom ñooy buur amul keneen àdduna bi yëpp nag ñoom rek amaatul keneen suñ ñëwee ci xissa wa warisa suleymaan daawud alayhi salaam loolu suñu borom moo ñu ko wax suleymaan donn na daawud alquran ne wa warisa suleymaanu daawud wa qaala ya ayuha nnaas ullimna mantiqa tayr wa utina min kulli cheyin inna hada lahuwa alfadlu almubin sunu borom nee na ci suratu naml ay 16 muy fukk ak juróom benn salaam wa rahmatullah Suleymaan donn na Daawud taxaw na sax moom Suleymaan ci pénc mi mu woote ne yéen nit ñi yàlla xamal na ma picc yi lu ñuy wax yàlla jox na ma lépp min kulli shay lépp yàlla jox na ma ko def na ko ci sama loxo looloo tax nga dégg ne kon liñ ne Suleymaan gouverné na àdduna aaya bi dëggal na ko gouverné na ba gouverné picc yi jiite ñanaaw yi jinne yi xam ngeen ne masjidul aqsa jinne yi ko doon tabax keroog ba mu faatoo yàlla di won ne jinne yi xamu leen kumpa mu taxaw lu yàgg jinne yi di liggéey bi mu daanoo la jinne yi xam ne ndeysaan ndeke xamuñu kumpa taxaw na lu yàgg mu dee benn gunóor bu ndaw bu tudd max moo dugg ci bant bi mu sukkandiku woon taxaw gunóor gi di max bant bi di max bant bi loolu boo koy jàngat kon loolu ñaata at la war a doon gunóor gu ndaw googu tudd max di dugg ci bant di ko max bant boo xam ne buur moo ko téye taxaw nii jàppandu ci boobu ban bant la war a doon nan lañ ko war a defaree ba mu rafet nan la war a aaroo waaye max dugg ci di ko max ba bant bi funux ba moom moomu taxawoon appui wu ci bant bi dooleem damm bant bi mu doog a daanu loolu ñaata at la kon la diire ci jinne yi lu ñu liggéey kenn mënu ko natt waaye xoola Suleymaan mu ne xéewal gi yàlla jox ma yépp ma jiite njanaaw yi jiite jinne yi jiite nit ñi jiite lépp mun ne inna hada la huwa alfadlul mubin lii nag dëgg-dëgg ngëneel la goo xam ne man Souleymane su ma ko reconnaître du ma nit parce que ngëneel la goo xam ne bàyyi wookul ci kenn ku dul ci yàlla tabaraka wa taala te yàlla moo ma ko jox mu ne Souleymane lan la doon ci Daawud tey nit buy doon fii ci baayam wala muy doon ci famiyam lan lay doon alal Souleymane nag wa warisahu fi nubuwa wal mulk moom donnul baayam alal waaye lan la donn ci baayam mooy yonent gi ak nguur ga ndax baayu Suleymaan buur la woon yàllaa ko def buur def ko yonent te jàngoon nañ xissa bi lan moo tax baayu Suleymaan nekk Daawud lan moo taxoon mu nekk buur lan moo tax yàlla def ko yonent loolu jàngoon nañ ko mu ne walaysa almuraadu warisahu fi lmaali la li annahu qad kaana lahu banuun gayru fama kaana liyaxussuhu bilmaali duunahum wa li annahu qad sabata anna rasul allahi sal allahu alayhi wa sallam qaal la nuurisu ma tarakna fa huwa sadaqa wa fi lafz nahnu maachar al anbiya la nuuras mu ne Suleymaan lan la doon ci baayam mooy nguur gi ak yonent gi loolu la doon waaye doonul alal ji lu tax ndax amoon na ay yeneen doom baay baay ji du ko jël alal ji jagleel ko ko baay yi ñële loolu du maandute moo tax donnul alal ji moom Suleymaan lan la doon ci baayam mooy nguur gi baayam bàyyi woon loolu la doon ak yonent gi fi baayam bàyyi woon loolu la ko yàlla dénk jox ko ko waaye du alal ji mu ne sax na jóge ci sunu yonent alayhi salaatu wasalaam ci xadis boo xam ne muttafaqun alayhi buxaari moo ko solo ak muslim mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñun yonent yi lu nu bàyyi kenn ko doon lu sarax lay doon gis nga xadis bii bokk na ci li indi problème diggante sunna ak chia diggante Fatima ak lenn ci ay saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye loolu tey ci bunt bi taxu nu jóg ñun yonent yi kenn du doon lu nu bàyyi sarax lay doon beneen riwaaya bi mu ne nahnu maashara al anbiya ñun mboolem yonent kenn du nu doon laa nu ras kenn du nu doon yonent lu mu bàyyi moom moo ko xamle moom yonent bi mu ne anna al anbiya laa tuuras amwaalahum yonent yi kenn du donn seen alal comme ni ñuy donnee ñeneen ñeneen ñi kama yuras xayruhum comme ni ñuy donnee nun ak ñeneen ñu faatu ak yeneen i kilifa nga xam ne lu nu bàyyi dañ koy donn loolu yonent du ko ci fekk waaye bal takunu amwaluhum sadaqa min baadihim ala alfuqara wal mahawij yonent yi ñoom bu ñu faatoo seen alal suñ ko ba lu ñu bàyyi ginnaaw sarax lay doon ñu sarax ko faqiir yi ak ñi soxlawoo ñooñu lañ koy jox waaw mu ne kenn du jël seen alal di ko séddale seeni jege ñaale wala seeni doom wala wala wala déedéet li diine jàngale mooy ab yonent bu génne àdduna alalam sarax lay doon kenn du ko doon moo tax lenn ci ñoom ñi nga xam ne dégguñu diine dañu ne lan moo tax bi yonent bi génnee àdduna Fatima ñëw ne daf koy donnu ñu ne ko déedéet doo donnu sa baay bi mu ne lu tax duma ko donn ñu ne ko yonent moom moo wax ci boppam ci ay xadis wir ne ñoom yonent yi bu ñu faatoo kenn du leen donn mu daal leen di indil aaya wa warisa suleymaan daawud suleymaan donnoon na daawud waaye du alal ba njuumtali foofu la nekk suleymaan lan la doon na daawud wax naa ko léegi mooy nguur gi ak yonent gi la doon noonu loolu la ko yàlla def mbokk yi moom Suleymaan yàlla def ko ab yonent yàlla tànn ko gënal ko yàlla tàggatal ko ay mbir moom yonent yàlla Suleymaan yàlla may ko nguur goo xam ne may ko kenn ci kaw suuf yàlla moo ko nangul ndax moom moo ko ñaanoon moo tax dégg naa ci Sénégal benn kilifa diine buy critiquer Suleymaan mu ne Suleymaan ñaanam gi mu ñaan jaaduwut waaw lu tax Suleymaan ñaan loolu loolu rafet mu ne man rafet lu wuma ko ndax Suleymaan moo ne yàlla may ma nguur goo xam ne man bu ma fi jógee dootoo ko may keneen sama ginnaaw mu ne Suleymaan loolu mu def jaaduwut nga loolu moom tamit beneen mbir la Suleymaan ci suratu Saad aya 35 yàlla nee na Suleymaan wax na rabbi firli wa habli mulkan laa yambagi li ahadin min baadi innaka antal wahab yow yàlla maa ngi lay ñaan nga jéggal ma rabbi igfirli yàlla jéggal ma xoola Suleymaan li mu nekk buur lépp jiite jinne yi jiite nit ñi jiite picc yi jiite lépp yor ci nguur loo xam ne doomu aadama mus ko yore nekk yonent terewul mu ngi ñaan njéggalu yàlla mu ngi naan yàlla jéggalu dara manqué bu ko ci àdduna ndax moom moo gouverner àdduna comme niñ ko waxee léegi koo xam ne gouverne gouverner woo benn secteur gouverner woo benn dëkk gouverner woo benn continent bal yow àdduna bi yëpp nga gouverner waaye nga yëg ne am nga lu la manqué ba nga koy ñaan sa borom bi la may nguur googu loolu ngay dégg ne yonent yi lu ñu takk takk takk ci ay ndomba tànk du ñu fàtte yàlla mi leen ko takkal fii ñun benn ndomba tànk bu ndaw ngay am rek dafa ne yow yaa moom àdduna bi commencé génne sa dënn commencé génne sa doole commencé commencé commencé commencé amma Suleymaan àdduna la ko yàlla dénk terewul mu naan yàlla jéggal ma rabbi xfir li ayoo yow yàlla jéggal ma yemu ci waaye mu yëg ne lii yàlla dénk ko ci nguur wala ak yonent lii yàlla rek moo ko moom keneen moomu ko loolu tamit beneen jàng la nit xam ne amul nit xam ne yore woo li nga yor moomoo ko dañ la ko dénk nga ñaan sa borom mu ne wa habli mulkan yow yàlla maa ngi lay ñaan nguur goo xam ne laa yambagi li ahadin min baadi lu tax parce que xam na ne nguur yàlla moo ko moom qul illahumma malikal mulk tuutil mulk man tasha wa tanziul mulk mimman tasha wa tuiz man tasha wa tuzil man tasha bi yadika alxayr innaka ala kulli cheyin qadir yow yàlla yaay borom nguur gi de yaay fal nguur ku la neex yaay folli ku la neex yaay teral ku la neex yaay teddadil ku la neex yow yàlla mboolem yiw àdduna ak àllaaxira ci sa loxo la nekk bi yadikal xayr lan mooy alxayr mooy lépp lu baax yow yàlla ci sa loxo la nekk Souleymane loolu la sentir mu ne yàlla maa ngi lay ñaan nguur googu nga xam ne kenn dootu ko amaat sama ginnaaw mooy gouverner àdduna aaya bi lu mu ko jeexale mooy innaka antal wahab yow yàlla yow doo nga yaay maye kenn du maye kudul yow moo tax comme yàlla mooy maye gis nga chaque jour li ñuy wax yàlla mooy maye xam nga dafa am loo xam ne jaami yàlla yi war nañ ko xoolaat ci seen bopp yàlla ne la man maay maye te maa moom mbir yi te man soxlawuma ko li mu bëgg mooy nga ñaan ma ma may la yow nga romb yàlla di ñaan keneen moo tax yonent bi ne addu'a wal ibada addu'a muxul ibada addu'a silahul mu'min maa ya'ba'u bikum rabbi lawla du'aukum innal lazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa rabbi in tarakta su'alahu yaghdabu wa bani adama hina yus'al yaxdabu doomu aadama tey kenn ku nekk ñun fii ci jàkka ji soo demoon ci sa baay daan ko papa may ma papa may ma bis bu nekk papa may ma bis day ñëw mu ne la waaye su buuxun ma la waaye yow yow yow même sa soxna sax même sa soxna sax su lay léegi nga ne ko wala yàlla nag moom boo ko ñaanul mu mere la doomu aadama boo koy ñaan chaque jour da lay mere yàlla boo ko dul ñaan chaque jour mu mere la du benn de yàlla soo ko dul ñaan bés bu nekk dalay mere lu tax parce que ñaan jaamu yàlla la mu ne kon Suleymaan sunu borom subhaanahu wa taala may na ko nguur goo xam ne may ko kenn mu delloo yàlla njukkal ne ko yow yàlla yow yaay maye yàlla may ko ko may ko nguur goo xam ne yemul rek ci nguur wala yàlla may ko maalifatu lugatu tuyur wal xaywaanaat Suleymaan da daan dégg làkku picc yi ak rabu àll yi moom moo ko nettalil boppam yàlla di ko wax ci alquran ci suratu naml aya 16 mu ne yaa ayuhan naas ullimna mantiqa tayri yéen nit ñi man sama borom day dimbali na ma ba may dégg làkku picc yi bal sax dafa amoon picc boo xam ne ci gouvernement moom Souleymane da daan yónni picc bi picc bi mu ngi tudd wut wut di koy indil ay information di wax ak moom Souleymane di dégg làkk yi Souleymane dégg na tànku xorom ndom xorom ndom Souleymane ànd na ak armeem ñiy dem xeexi benn benn xorom ndom mooy mbelentaan yu ñuul yu mag yooyu mu mu dégg riir bi di ñëw mu jox leen information mu ne yéen xorondom yi gaaw leen ngeen dégagé wu ci yoon bi ngeen dugg seen camp balaa Souleymane di leen nappaaje Souleymane bu mu rombee mu jàpp lu xorondom bu mag boobu wax loolu mu teg ko ci kanam mu ne ko yow xanaa man dama dof walla aw ma xel ba may ñëw fekk leen fi yéen ngeen nekk ay jaamu yàlla ma leen di nappaaje yow nga taxaw fi di wax loolu mu ne ko xanaa déggoo li ma teg ci ci ci ci fin wu wax bi wahum laa yasuruun ma ne mun nga koo def te doo ko yëg doomu aadama kese nga xanaa déggoo li ma ci teg mën nga ñoo nappaaje te yëgoo ko Souleymane daal di koy libéré kon yàlla mayoon na ko moom Souleymane muy dégg waxu picc yi ak rabu àll yi ba mu wax ko ci alquran ne moom yàlla tabaraka wa taala xamal na ko làkku rab yi picc yi waaye yàlla yemul ci loolu mu ne wa uutiina min kulli shay yàlla jox na ma lépp loolu kenn mus ko wax ci àdduna lépp ku am lépp Souleymane dong moo ko moo ko mus a wax yàlla may na ko ci nombre armée bi kenn xamul nu mu toll moom arméem du ay motaar moo ko doon gàddu motaar mënu ko woon gàddu du ay oto du ay moom ngelaw li moo daan def 4 mètres carré ngelaw li ngelaw li 4 mètres carré mel ne baas Souleymane daal di yéeg ci kaw ak armée bi picc yi tiim leen jinne yi entrasé nit ñi nekk ci digg bi mu toog ci fauteuilam jinne yi wër ko te amoon na ci jinne yi ñoo xam ne suñ koy liggéeyal nekkul ne day toog fii mu yónni leen ba heure bi di waaj a jeex ñu doog a ñëw déedéet am na ci jinne yoo xam ne seconde la leen daal yónni seconde nangam laa soxla ñu ne ko moo ngi nii comme bañ koy indil seesu Balqiis balxiis xam ngeen ko mooy ki ko picc bi waxoon ne dem naa fenn foo xam ne fekk naa leen ñuy jaamu jant bàyyi yàlla ba mu leen wax ne dem leen ngeen indil ma seize ba ndaw si doon toog mu dajale jinne yu mag yi mu ne yow ñaata nga ma mën a indi kooku naan ko balaa ngay jóg fi nga toog mu ne ko loolu daa yéex wala balaa ngay jóg fi nga toog mu ne ko loolu daa yéex mu ne keneen ki mu ne ko sa xef yi balaa muy ñëwaat maanaam bi nga boo nee nii bi ci kaw balaa muy laal bi ci suuf ma indi ko mu ne ko bisimilah mu ne ko seize baa ngi nii kon koo kay bu nee jox nañ ma lépp jox nañ ko lépp yàlla may ko ci nombre boobu yàlla jox ko jumtukaay yàlla jox ko ay soldaar yàlla jox ko armée yàlla jox ko mbooloo ay jinni ki nit ak ay picc ak ay rabu àll ak ay seytaan Souleymane doomam mos na feebar mu ut lu ko faj ba sonn doom ji wérul mu ne jinne yéen ak ni ngeen bëree ak ni ngeen amee xam-xam mun leen maa fajal sama doom ji jinne yi ne ko am na benn jinne daal bu nekk ci géej gi kooku daal bu ñu ko jàppoon dina la wax sa doom ji li koy faj ñu ne ko jinne jooju at bu nekk benn yoon lay génn su génnee ba gis asamaan ak suuf day dugaat ci biir géej gi dootul génnaat at bu nekk benn yoon lay génn mu ne leen ban place la nekk gaa yi wax ko ko mu ne defal leen ay mbaal ak ay fiir ngeen dem jàpp ko ñu dem jinne yi dem toog di ko xaar at bi mu war a génn ba bis bi jot nekkul ne dañoo dañoo dem toog foofu di ko xaar ba xam kañ lay génn ñu bàyyi ko ba mu génn rek ñu mbaal ko biñ ko mbaalee jinne ji daal di reetaan ñu génne ko géej gi di ko indi jinne ji seen benn waaye bu toog ci suufu garab jinne ji daal di ree ñu indi ko ba ci kanamu Suleymaan sànni ko mu ree ñaata yoon la ree Suleymaan ne leen kii bi ngeen ko jàppee ak léegi lu mu fi def ñu ne waxul deful dara waaye ree na ñetti yoon Suleymaan ne ko yow sa ñetti ree yi lu muy tekki mu ne reetaan bu njëkk bi dama xam ne ni ma amee doole ak ni ma amee kattan ak ni ma amee xam-xam nga xam ne at bu nekk benn yoon lay génn xam naa juróom-ñaar fukki at lu nekk sama kanam luy ñëw li ma paase xam naa ko waaye tey jii bis bi may jàpp xaw ma ko woon loolu laa reetaan loolu la yàlla naan law kaanu yaalamuuna al xayb maa la bis ba jinn xamul kumpa xoolal li muy am xam-xam ak li muy réy ak ponkal gi mu nekkee yëpp xamul ne tey dañ koy jàpp mu ne moo tax bi ñu ma jàppee ma ree ñu ne ko deuxième ree bi mu ne waa jooju ngeen gis ma gis ko mu toog ci suufu garab gi ma ree mu ne waa jooju journée bi yëpp or la yëndoo wër fu ne dugg na fa ak peelam boobu ak bagage am yooyu mu yenu mu ne bi mu yendoo dox ba sonn mu ñëw ci suufu garab googu toog di noppalu foofu mu toog ci kaw or bi la toog te xamul ne ci or bi la toog moo tax ma ree mu ne doomu aadama saa yi da ngay wër loo xam ne mu ngi nii jege la ay doo ko gis mukk te li ngay wër a ngi nii nga jege la moo tax boroom xam-xam yi di wax ne lu la réer wala ñu laaj la bu ñu la laajee benn laaj balaa ngay buuse xoolal li la wër souvent bu ñu lay laaj ci la jege lañ lay laaj Souleymane ne ko boobu leer na ñetteelu ree bi nga gis nga gis ma ma toog nii ngay ree looy ree mu ne lan moo tax ngeen jàpp ma ne ko Souleymane ne ko sama doom moo feebar mu bëgg lu ko faj ñu ne yow xam nga ko mu ne du loolu moo tax nga indi ma fi mu ne waaw mu ne garab gii nga toog nii car yi wër la xob yi mooy faj kii mu ne loolu moo ma jaaxal ngeen dem di ma wëri te yaa ngi di toog ci suufu garab gi garab gi boo ci dindee ñetti doom nga baxal ko soo ko joxee sa doom bi mu wér ngeen dem di ma wëri kon gis nga doomu aadama chaque jour li la jege lu bëri doo ko xam yàlla noonu la ko maye woon moom Souleymane mu am ay jinni am ay shayatin am ay xam-xam yoo xam ne kenn xamul nu mu toll moo tax gis nga loolu yëpp nag li muy bëri bëri Souleymane daf ko jël delloo ko yàlla mu ne wa inna haada inna haada la huwa alfadlul mubin lii daal dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ngëneel goo xam ne yàlla defal na ma ko jagleel ma ko te muy lu leer naññ naññ ma teg ci sama bët waaye tamit man nangu ko ma reconnaître moo tax doomu aadama léeg-léeg yàlla daf lay defal ay xéewal yu la jege waaye ndeysaan doo ko xam te alxuraan wax ne wa amma bi ni'mati rabbik bokk na tamit ci li ko yàlla may tasxiirul jinn yàlla daf ko tàggatal jinne yi te loolu xéewal gu rëy la ndax xam ngeen ni jinne dafa bokk ci mbindeef yi gën a wow bopp ci àdduna yi gën a féttirlu ci àdduna jinne ci la bokk yi gën a doy waar jinne ci la bokk moom Suleymaan nag yàlla tàggatal ko jinne yi ba jinne yi ñemewuñ ko ndax bi mu leen di liggéeyloo masjidul aqsa benn fiit rek la yoroon jinne yi di dem biir géej di nuur di indi ah ay jamaa ak i or ak ay weñ përëm pour ñu defar jàkk ji mun a capp taxaw di leen xool yàlla nettali ñu ko ne moo ko tàggataloon jinne yi mu ne wa mina ak seytaane yi wa mina shayatin man yaxuusuuna la utaloon naa ko ay seytaane yoo xam ne ñoo koy nuural ci biir géej di ko génnil li mu soxla wa yaamaluuna amalan duna zalik am na ci yeneen yoo xam ne ñoo koy defal leneen comme indil seize comme di ko gis nga ñun ne di ko defal lool sunu borom ne wa kunna lahu xaafidin waaye nag loolu yëpp man yàlla maa ko doon sàmm ba jinne yi amuñu accès ci moom man yàlla maa ko aar nekkul ne moom moo aar boppam loolu lépp man yàlla ma damaa ko defal ba pare toog nag di ko aar la moo tax ku yàlla aar nga aaru kenn du mun ci yow dara soo asamaan si doon taw ay bombit bu la yàlla aaree kenn mun ci yow dërëm waaw yàlla waxoon na seydina muhammad wallahu yaasimuka min annas kon mbokki jullit yi ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ñu yem ci ñaareelu njëriñ bi yàlla may suleymaan mooy ba mu ko xamalee làkku picc yi xamal ko ak rabu àll yi yàlla tamit tàggataloon na ko jinne yi incha allah noonu lañ koy toppee ba dars bi jeex ci suleymaan ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla def ci ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullah